jërë ngeen jëf mbokk internet yi di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun fii ci seen kàddu xibaaru digg bëccëg gi dañu koy door ak tolluwaayu mbas mi tey ci alxamis ji yemoo ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre résultat mbas mi nii la tëddee leeral li ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. fukki fan ak ñett ci weeru décembre mi nekk ministère la santé et l'action sociale jot na résultat examen birologique yi may waajal ci junni ak ak juróomi. benn test yi ñu def fanweer ak ñett ñoo ci positif positif yooyu seen lim ni la tëddee am nañ ci ñaari cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxaso woon ak ki yore doomu jàngoro yi am nañ ci ñaari cas yu jóge bitim réew maanaam importé te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu dias waaye am nañ ci tamit ñaar fukk ak juróom-ñeent yi ñu tuddee communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fiñ ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëdde ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñett te ñooñu ñu ngi leen fekk ci département de Dakar bu Rufisque ak bu pikin waaye am na kenn tamit ki nga xam ne ci yeneen région yi mooy ci région de Tamba am nañ fa benn cas communautaire ci département de Bakel toujours ci bilan bi ñu xamal leen ne que tey fukki malade ak juróom ñi xam ne ñenn ñi ñu leen doon topp ci biir kër yi ñeneen ñi nekkoon ci hôpital wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee amul kenn ku nekk réanimation amul kenn tamit ku génn àdduna bésu démb alarba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre miñ nekk démb ci àllarba ji doon nañ amal conseil des ministres ci teewaayu président de la république Macky Sall euh, daal dina fa xamle ni lii di terrain express bi dana tàmbalee daw ci diggante Dakar ak Diamniadio le 27 ci weer wi. Euh, Lila la daal di xamle demb ci ndaje miñ doon amal di conseil des ministres lañ fa waxtaanee itam bokku na ci euh, signature convention euh, ci diggante société bi di IFAS ak nguur gi ngir Sénégal mëna dugg ci capital société IFAS bi su lu ñeel autorité bi té suñu ko xayma mu wara tollu ci jël ñaar fukk ak juroom ci suñu ci suñu capital leneen ci xibaar yi na ci criminalisation de l'homosexualité de l'homosexualité ki nga xam moy Mamadou Lamine Diallo bokku na ci yenn ci député yi taxaw ngir engagé wu ci xeex bi duggal loxom ngir ñu daldi amal li nga moy projet de loi criminalisation li nga xam moy homosexualité ngir gunge kurel gi di sam jikko yi té ñu déposé ci bureau président de l'Assemblée nationale ap projet de loi ngir ñu baña a taxawal li nga xam moy homosexualité fi ci réew Sénégal bokku na ci xibaar yi scandale ci lu tollu ci ap détournement ci trésor tollu ci ñaari milliards ak ñetti téeméeri millions ci suñuy copal naka nonu sax inspecteur du trésor euh, di wuyoo ci turu Elage Abdul Abdoul euh, Abdou Aziz Diop dal dina fësal ab lettre di firnde ni amna na ñetti téeméer ak juroom ñetti fukk ak juroom ñaar euh, ci ay milliards yo xamné collectivité territoriale ñoko mom ak lu toll ci juroom ñetti téeméer ak juroom ñaar fukk ak ñaar milliards millions ci suñuy yo xamné dégagement de fonds la muy mbir mu doy après di ab xaalis bo xamné ne dañ ko dal di détourné fële ci trésor Guy Marius Sagna daal dina fësal ci bilan bi nga xamné ni mooy jafe-jafe yi nga xam ne daal dina ko jot a dund fii ci réew mu Sénégal ci noonu sax daal dina sàkku ngir ñu daal di koy may ci lu tollu ñetti at ci lu li nga xam ne mooy liggéeyam ci fonction publique ci diirub ñetti at sax ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna daal dinañ ko affecté lu ci lu toll juróom benn yoon ak ñeenti yoon yoo xam ne daal ne ko daal dina ko dugg ci prison moom sax euh, jafe-jafe yooyu sax tax na ngir mu daal di fippu di xamle ni euh, boobule affectation ñu ko amal foofu ca Kédougou moom sax mu ngi sàkku ngir ñu may ko ñetti at euh, ci disponibilité ci lu la wàllum liggéeyam bu loolu jàllee ñu door xibaaru tàggat yaram mi ak football démb ci àllarba ji président euh, CAF ak yenn membre yu nekk ca CAF ak itam ki nga xam ne mooy Augustin Senghor doo dañ dool nañ amal ab doxanti nemmeeku ngir saytu yenn stade ca Cameroun ngir waajal li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique des Nations ko 9 janvier le 8 février insha allah nako nonu sax euh, Coupe d'Afrique bi dañu koy euh, Coupe d'Afrique bi dinañu ko euh, def anam ya nga la waré Cameroun Coupe d'Afrique lañuy équipe nationale bu Sénégal dina wara Cameroun ngir bokku ci les compétitions compétition demb sax martar Ba dal dina ni état bu Sénégal le dina ci lu 5 milliards war a sax lu ko ëpp ci ab budget boo xam ne dinañ ko tekk ngir gunge ñi nga xam ne ñooy gaynde yi ngir ñu mën a euh, bañ a am benn jafe-jafe ñeel li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique mbokk yi lii lañ leen fi indiloon ci xibaaru digg bëccëg yi di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal kendalu jàmm